أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله nga xamante ne tey jii ci gestu bokk na ci li gën a am solo mooy ñun fan la ñu jógee waaye alquranul karim dafa dem toorab téere boo xamante ne fii xabaru maa qablahum wa nabaru maa baadahum bi maana la leen jiitu

وعندك أدوات العلم أدوات العلم وهي السمع سمع damay dégg dégg sàmm nag bu ko dégg rek nga foog ne nopp la lay dégg ci nit nopp moo ci gën a tuuti lay wax ci nit làmmiñ moo ci gën a tuuti ndax lu matul jasad ki ni muy waxee nga di koy xool dañ gën a xam bu doon dafay wax te xoolul ko gis ko dañu wax ne juróom-ñaar fukk ci biir téeméer mooy wax ci nit ki ki muy wax juróom-ñaar fukk yëpp yaram bi moo koy wax làmmeñ bi fan bi rek la ciy nit mën na wax ba pare te doo xam li muy wax hmm. parce que comprendre na fi muy waxee hmm. xel mi yeggu ko hmm. buñ la waxee la ca gannaaw nga door a jëndi wax bi tax doom dina toog mu wax ak doom ja doom ji gis ne wax waaye paa bi xam ne lii waxu dëgg bu doom ji waxee ne lii moom dara nekk téye xam ko téye mm-hmm. moo dimbale ba dégg-dégg nam day ñi mën a déglu ci yoon mm-hmm. moo tax nit mu xamul mbir buñ la cay wax mm-hmm. pour nga comprendre dafay jafe kon xol dafay dégg moo tax yàlla nee na jox ko xol buy wax rek yaa ayyuhal ladina am il faut nga jox ko sa xol waaye nopp itam te la cay dugg mooy làkk làkk làkk séeréer ci nopp séeréer lay dégg yàlla olof xaaya xayam dégg séeréer xayam ba ñoom dañ ko yàgg te ne xayam bu dégg séeréer waaye xayam hmm. dégg séeréer boo ne xayam séeréer bi xam na li ngay wax kon dégg séeréer lay hmm. lakk arab ci nopp ku dégg arab lay hmm. lakk français ci nopp kii dégg français lay làkk anglais ci nopp ki dégg anglais lay doon moo tax wolof tuddee ko dégg séeréer tuddee ko naan defe naa ko damay jéene làkk yi ko naan lañ koy tuddee nanaa ma séeréer nanaa ma séeréer fu koy jaar ci sa nopp moo mën a découvrir détecter la nga xamante ne mooy baat yi ngay wax ci séeréer bu fekkoon ne nopp bi mën na koo détecter décortiquer ko bu boobaa da ngay wax fi ba Hmm. wax bi mën na am kat solo trop. Hmm. te nga gis ku toog paa bi di wax benn xikma bu am solo. Hmm. mu am ku toog di koy dégg te déggul soose masala ci soose la koy waxee mu dal laa gis mu wax. parce que li muy wax am na intérêt kon nopp moom mooy daal di détecter la nga xamante ne moom mooy kàddu bi ñëw. ki nga xamante ne nag déggul sa làkk yéen ñaar naka ngeen parce que loolu xaajee ko tey jii demal Chine dégg ko anglais dégg ko nooy jëndee ci marché ñii jógee ci Europe di ñëw fii ci Sénégal ci misaal touriste hmm. dañu ànd ak ku leen di hmm. ko defulee ñu nax leen kon pour walla ne dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ñaar pour ñu déggoo pour mën a jokkoo mooy làkk bu ñuy wax ñu mën koo déggante alquran nag bi lisaanin arabiin la yàlla wax quraanan arabiyan loolu la waaye ci biir mu ne quraanan moom jël na ko taraatee ko ci mboolem làkk yi lii ñuy wax ni du fekk di wax ko wolof dafay firi ci alquran kon kenn mënatul wax yàlla ne ko déggu naa que boo ne man arab la hmm. man arab man man angale la dégguma arab ñu karaatin la ko ci angale tegal la ko surtout ci jamono bi nga xam ne hmm. ko mooy tur mu wax ko nga dégg bindal hmm. la ko waxal la ko nga dégg kon yàlla alquran bi jël ko def ko arab nga xam ne keneen mënu ci jot ñëpp ci lay kii wax te dégguñu lakk hmm. ñeenteel ba boobu ñu bay naw bay nekk xijaab mooy situation hmm. tey jii nii hmm. jeune ni ñuy xalaate bokkul ak bàyyi ni ñuy xalaate ki am jabar ak ki amul jabar célibataire ñoom daal seen xalaat bokkul bokkul ki bàyyam di dund bàyyam nekk yaayam nekk bokkul ak ki nga xamante situation kenn ku ci nekk situation ba nga nekk ci ngay mën a comprendre sa morom gis nga ñaar ñu niroo situation ñoo mën a déggante comprendre ante gis nga ku yaayam gaañ moo mën a comprendre dëkk nit ñëw tàggi ko sama yaay dafa gaañ moom moo waaye koo xamante ne boo ko ko nettalee dana wax parce que waaye ba léegi dégg lan mooy ñàkk sa yaay muy firi dem ba mag war a soxla bokk la xale bu ndaw boo xamante ne soxlaa bu soxla ñoom ñaar ni ñuy xalaatee du benn kon hijaab mooy kiiraay gis nga ñaar ñi nga xamante ne bokkuñu situation bu ñuy diina ji parce que diina ji bu diina ji ñëpp a ko war a nangu wala mu nax fi ak i nati ñu atal ñëpp a ko war a nangu ñaareel bi bu dee ne ijaabu luwa bi mënu leen déggante moo tax mënoo gëm li muy wax parce ñoom dégguñu ko moom seen làkk ñaata ñaata nit ñoo dugg ci loxo kenn xamul ne ñu toll ay junnee junni te moom déggul seen làkk moom itam ñoom itam dégguñu làkk as di ma nga xamante ne ci la doon jokkoog ñoom mooy lugatul arabiyya parce que buur kan ba ci la doon wax ak waaye jóge na wàcc aéroport daje ak ay chinois chinois yi di ñëw di koy di koy suuf di koy rabal te pourtant masul wax ñoom ñu dégg dégg ñu lakkam kon lii dégg ci nit xol bi moo ci jiitu boo gisee nit sa xol nangul ko rek bu waxee dañ koy comprendre waaye nit ko kon lii dégg ci moo ci gëna tuuti li wax ci nit ki itam li wax ci nit ki làmmiñ moo ci gëna tuuti nit ki mëna wax lu bari té benn baat rek la wax motax mo mu ne ci jawaab yàlla kalim moo motax mu tégal la ci né faamal ñom nak ñu né ko faamal liggéeyal inna la amee loolu ñun tam ñu liggéey kon ñun jël nañu suñu position bi bari yow tam jël nga sa position hmm. kon liggéeyal ñun tam ñu liggéey hmm. màndu la loolu ci màndu la hmm. kon faa amal yow liggéeyal dina naa waaye liggéey nag moom moo wute payoor yi nag moom lay wute kii def bu baax faa amal da mooy yonente bi la ñuy def ci lu baax ku leen koy fay lan lañ koy fay lu rafet al jazaa'ul illa al waaye bu dee ñoom la def ci bàkkaar ak ñaawteef wa jazaau sayyi'atin sayyi'atun misluha adduna même jeex amul noppale kullukum yàqu kullukum yàqu yàlla defi ne la yéen ñëppay xëy amul ku dul xëy fa bàyyi woon nafsa nafsa aw moo ci wax loolu moo fi am da ngay xëy ci lu baax wala nga xëy ci lu baax waaye ñàkkaa xëy moo kii nelaw sax نخير محمد الخير شنو مخير؟ كنا لا خير ولا لو تبغى تنلم معه ولا دير day compter rek la dem bu baaxul moom lañ tuddee alxaylu la baaxul façon ne la wi ñett la bi ci baax mooy alxaylu la boobu bëccëg lay doon avant tisbaar bi tuuti am bi ñuy tuddee alxayruula mooy nelaw suba bi lan mooy tudd xaala mooy xaj mooy xaj war sax am bi ñuy tuddee alayruula mooy ñetteelu nelaw boobu itam baaxul boobu mooy par ngoon feebar lay def nelaw jëmal ko def feebar rek la kon pour wol la ne amul dul xëy ñëpp xëy moo tax mu ne faamal inna naa amin kii dafa xëy toog kii xëy dem liggéey kii xëy dem jàng kii dem xëy gis nga ko ca bureau ku ci nekk am na foo xëy amul bu xëy koo loo ko jàng ba hmm. tax mu ne faamal indi naa am waaye nag la ngay liggéey nag est ce que baax na bëgg nga ñu fay la ko hmm. te mu ne innama hiya a'maalu ana usiha man dama leen di enregistré rek bu pare rek ma fay la ku fa fekk lu baax yàlla wax nee na santal sa bopp waaye ku ko fekk safaan ak balaa yàlla mën na illaa nafsa bul yeddi jëlee ko dul sa bopp moo tax boo xëyee faa amal liggéeyal seetal na fi day teg sa tànk kul yow Muhammad wax ne sallallahu alayhi wa sallam xam nga ñoom wax nañ seen position ba pare yonent bi nag di wax naa naan ak ñoom ndax position bu ñu jël baaxul ci yërmaande xarit naa yërmande mu ne bul wax leen ne innama ana man li xew ci man mooy basharun nit la kon wax nañu ñetti mbir yoo xamante ne tax na ba ñoom mënuñu dégg ak moom ñetti mbir bokkuñoo moom bokkuñoo bokkuñoo moom déggin bokkuñu ak moom itam situation bokkuñu yow àllaaxira nga soxla ñun àdduna lañ soxla kon wax nañu seen bopp ñun mënuñu dégg ak yonente bi ne am na lu gën a am solo loolu pour déggoo am innama ana basharun nit nit la comme yéen kon loolu daane la leneen parce que nit mooy wax ak nit déggoo olof nee na borom làmmeñ du réer mbaam ak nit ñoo mënta déggoo te léeg-léeg ka ñu déggoo ak borom mbaam léeg-léeg mu déggoo borom kon rab ak nit ñoo mënta déggoo parce que waaye nit ak nit mën nañu déggoo moo tax mu ne la waxtaan ñàkkaaree wax ñàkkaa waxtaan waaw moo tax yenente bi léegi di leen di woo leen waaye bu leen def leen ne aakañ nit laa comme nit laa rek mën nañu déggoo ba léegi ñàkka bu yaakaar mu teg ci beneen yuuxaa ilayya am na lu ma yàlla xamal te yàlla xamal leen xamante ne jëriñ ko hmm. te nit bu xoolee li koy jëriñ mën na écarter lépp loo xamante ne mën na jaar mu doon distance sa diggante am hmm. waaw tey jii nii tubaab ba ñu soxlaa Afrique def nañu nekk ba dugg si Afrique hmm. nit ki bu soxlaam taxawee rek lépp loo xamante ne mën na teg distance am ak ka mu soxla mën na ko teg côté ba ba ñuy pare nag mu door a jëlaat distance moo tax mu ne ko yuuxaa ilayya am na lu ma yàlla xamal loo xamante ne yéen xamalu leen ko walhamdulillah benn borom xam-xam bindikat dafa bind ne mu ne tubaab yi dañu añaanee jullit ñi yonente bi sallallahu alayhi parce que ba histoire sosoo ba tey jii nii mosuñu gis comme ku mel ni Muhammad sallallahu te loolu yëpp adduna bi yëpp d'accord nañ ci te comme ñoom nag dafa dañ xaw a am rëy bëgguñu topp kenn lii mooy seen problème parce que xam nañ ñu jël yonente bi arabalee ko ne arab yi ñoo ko hmm. yonente bi nag ne hmm. maa ngi wax arab hmm. tax kalimat bi kalima dafa liggéey arabiya yonente ne nag képp koy wax arab arab la mais su fekkee am na ñuy contesté hadis boobu te képp koy wax arab arab loolu yente moo ko wax kon tey jii ni suñu kilifa yu baax yi ku mel na ka Seydi Alaaji Maalik mën nañu xam ne arab la parce que li mu xam yëpp ci arab la ko bind ku mel na ka Cheikh Omar Al Fouti mën nañu wax ne arab la ku la wax ne imam al Buxaari du arab ñu bari nañ ko duñ ko gëm te pourtant du arab waaye li mu bind yëpp ci arab la ko def kon lakk bi moo ci am solo waaye nekkul jinsiya bi sexe bi amu ci solo de li ci am solo mooy est-ce que yow yaa koy dégg wala yaa koy wax mm-hmm. moo tax yonent bi sallallahu wax leen ne mm-hmm. loolu ngeen teg ne man arabe la tax ngeen bugg a beddeeku dem ne yow pour arabe yi nga mu ne leen déedéet man du ko pour arabe yi kese man pour ñëpp la wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil mm-hmm. moo tax te ñi ngay fekk ay asiatique seen diine nga gis ñoo xam ne ay africain lañu man arab xam ci seen diine kon man ci sama bopp lu tegu ci sama personnalité nit laa ko yéen hmm. kon war ngeen ma mën a nangu ñaareel bi am na lu ma yàlla xamal loo xamante ne xamal